Thank you waaye yu ana Dieng. mi ngi fi. Dieng bëgg naa jëli posé ma de. Dieng baalo rek. mbaa woo ko sama yóbbante. laay laa ëpp na nee naa ko puissance nee na ñëw sànnee ko fii felaare. waa kon ngeen jaabiraa ba muy moom. waa gis nga <laughs> waa kon loolu la. <laughs> waa maman. loolu daal dina ma neex. ñu daal nga def. Fanny de la def deug de ah beug na sa ci ko ah en xam ngeen ne bu ma nekkee seen biir faa may def yi yu bax yi ngeen def <laughs> ay xolal jabar dekkando bi sans fim génn sama jaxasu dekk de la sol ah ma salat li mom japp na la ah. Ah, bu ko di baye de ay ah. moom yaa ngi si dara moom ah be way wajal rek ah degal li tamit ci jeng balam poosal mo ma yàq barki wonen tamit ay fam la moko mom mhm. ah kon Dieng ni muy posal bëri na. Dieng baalo ah boo leen dem doo leen ma fi ba daal en tout cas. yóbbu ba mu neex borom jaabiraat. kon demee ëpp na waaw. jabaru mag jaa ngi de. <laughs> danaa la cin bokkul cafin de. Hmm. bu bokkoon cafin. doo ma yàqal la yàqal waaye moom yàqam maa ko jël <laughs> kii xewam toj na de. teranga budul teranga teraanga jinne daal defal nañu la waaye xam nga ne wéru koor gi tamit terem njëkk da ci am solo waaye ba tey gisaguma dara togal ko na muy ñëwé ëpp na maa toogal fii ci bi kër gi ne la mama man la kajaabari jéegoo jeeg maa mën te ragaluma ko tiituma ko xofuma ko lool sa yef tay ma ngi ci yow nee dama lay teral ngay daw ma topp la di la teral ngay daw ma di la màtt di la gëj di la buloo di la judo laaj ma ci lan naturel sava naturel laa lay jox joxaat la gesner <laughs> tegal la ci cinquante mille francs nga la doxantul ak moom nga dem fay ji sa ñam oh, xanaa duma coupable ah na yàlla kontaan ndax xewal lii lañ jàppee di ñu duma di ñu dumaat ay terang, ba ba ba oto kii mon moo naroon jël si <laughs> laaj waaye xam nga ne mo pël bu rafet komba boolewu leen combat boolewu leen de mhm. te mag sa tamit arbitre bu ko arbitre day day kii ndaanaan la kullu fadrin ndaanaan la si biir ndaanaan yi kii xewa masha Allah dafa tànt tànt jeex waaw ñu orne baas bi def tapis rouge ba muy moom waaye pël bu rafet moom xewam daa tombeek année soixante robu ya, ñoom matéwo yaa ngi sétan film ñoom matéwo xaw ma wo film yooyu ñu doon sol di fecc seen fecc espagnol yooyu ya. am italien yooyu ya, hmm. yooyu la soloon jour xewam def coiffure banana nak ba ci kaw islander nga defon ba sa xef bi genn ni way hmm. mom ki la tay ak la def ci ki bi ba melni rirua, ñuulal pënd ba rir wa pënd la moo ne yéen ñaar ñëpp laay waxal wala bokkatoo ci waxtaan bi waxtaan bi. pënd la xam nga kii yooyu noonu ancien combattant yi bu ñuy maaj. waaw waaw pënd ba di jóge xewam noonu la doon jógee. bu nekk nag bu solo ñu ne ma na seen seet bi ma ne ko du seet bi du moom ñëwagul topp bi la. ñu naan ana seet bi ana seet bi ma naan du moom du moom ñu naan ndax daa amee rab ma ne ko fajuñu ko waaye du moom. <laughs> du moom waaye yow daa naan nga de. waaye yow sa xew wàcc na ma dëgëre de barki weneen bi jéegoo jéeg yaa man. waaye yow yow da nga xam ba pare léegi da leen di seet fii ngeen ràcc ah. ñooñu fii ka jaabay. tey lii nga def ah waaw gis nga macha allah sa bopp rafet na de. gis nga de asumaama doo nga fi jaale ba mu baax. waaw gis nga asumaama moom saa bu ma fekkee ma toog rek ne ma kaay dangaa war a defal sa bopp. man daal bëgg naa ko ci xale xale daal day feros dëgg neexut. déggal loolu. moo tax ma rakkoo la dëgg neexut. waaye loolu moom am na maman. sawa chéri awul kana puissance ana jom da gën da dafa gën wa ana li mu ñew da melni yeen ngi won japp ñax de way gis nga ah. encore gi mu démé nak waaw yeen ngi préparer korité ah, hmm. bi waaw yam da nga fekk léegi ñu naan ay pause ak yooyu ah d'accord xanaa ci jëng baalo ngeen di def waaw waaw gis nga jëng baalo daal la faa dem ma ne gis nga li tax ma xaw a yéex nii sax marché laa demoon pour defal mama shopping xam nga rek waaw moom mooy suñu njëkkee te bokk suñu jëkkër ñoo bokk ndey ak bàyyi moom rek lañ fi am gisuñu kenn ku moom moo tax ma ne naa ko defal shopping mu comme que moom ay synthétique rek lay teg te da doon jooy ci cheveux ba taxoon mu dem liggéey ji xëy na fa mu liggéey ji woon sax yàlla dafa def toogu fa moo tax ma dem jëndal ko cheveux longueur 36 ak Getzner yóbbu ko ci Njaay création pour mu ñëwal ko dal tamit commandeel naa la ko ci waa Mina rek dangay dem rek xool yow numéro bi ngay sol nga dem jël en même temps dinaa la jox 75000. pour nga def ko argent de poche jënd si sa quelques accessoires yi nga soxla rek. xam nga yow moom sama typo de cœur nga moo tax dégg nga. jaru ko jaru ko Fatou Bintou Kouyaté Serigne Mansour Gueye moom defaloon na ma shopping fii Espagne. kii daa dëgg toolu noonu xam nga laa bëgg. teraanga la la defal de. teraanga piir nag la la defal. damaa bëgg na nga jàkkaarloo ak moom ndax léegi lañ la fi defal teraanga nga wax daal ba jël sa ngor teg ko ci palaat wanteer ko waxal ah? Billboard Veteran Gaya ko yellow ah mama defet doo ko fàtte ah dëgg la moo yooyu ya, nag dama ko koo jox nii rek xanaa gàcce bu doon rey di nga dee maman nag dangay teel a wanteer sa ngor xanaa war ngaa mën a rus kii de lu mu la fi waxul amul ay années soixante ay xaw ma ay laa nër xaw ma man damaa tiit façon wax bu ñaaw bu ne moom mi kii bi wax nañ la ko kon kii daal dafa jël rek yaakaar na teraanga moom teraanga moom moom rek moo ko jagloon moom daa yaakaar na rek moom rek moo war def teraanga wax année teraanga sama yëf la ah sa la maa ko moom ma caa ca naan ca des ma séddale waaw léegi woy nañ ci te man dama ba may terale boobu teralaata xewul damay teral goro teral njëkke teral muus teral xaj teral xaritu jëkkër waaw comme xanaa damaa mën teraanga euh, ñëw ci bu baax année 60 ça va kii sama maye rek ma ñëw. Mhm. oo oh, war na daa obligé yoo dafa mën wax façon wax bu ñaaw ba ne lu gàttal wax di détail bi laa du mënul waxal na ko dañ la sa xew kon na ma da doon jóg di kuri di wuri sa jëkkër moo mel noonu yaa ma dégg <laughs> nee na maanaam italien seen robe yooyu ñu doon fecc dañ doon daas ñooyu robe yu weex dañ si doon dugal xaw ma fi moom nga soloon yooyu jamono yi <laughs> maamam la di eh, mama yaa fi wax li yaa ah? yaa jaay sa ngor nii comme ni ko puissance waxee teg ko ci palaat di ko wanteer saam ndax lan cheveux naturel mm-hmm. maman lu la ko jaral yow daal dangaa bokk ci ñi nga xam ne bu événement jub see rek ñu jaay seen ngor ah maman bett nga ma de kii nag yàlla dafa dogal euh, fekkewul sama xew hmm. ndax moom village da nekkoon man bi ma seesee laa wax cofeel mu indi ko moom village da nekkoon ah! sama xew fekk ko fi dañ ko koo nettali man xam ne damaa xew rek xew jeex man xale bi safi bàjjanam ndax nu roog papaam lima lang dig fi ëpp na moom la picc yeeg rajo yi di ko sabee man rek moom wu ko mama da nga fekke woon sama xew nga ne dama sol ay année 60 ak yooyu fekkee mu ko woon dañ ma ko woon expliqué ah nga saña tok toog di wax nak nag Sénégal lu tax ngi yeen ngeen tambali rek <laughs> yeen do leen fekkee di wax di n'importe quoi ci doom adama ngeen ne da ngeen a woor nii am na lu ma ko déggaloon kan kan ka jabaré moom xewam xewal. xewal. bu ma xool de waxal ak moom bu ma xool. nee nañ xewam làmb temps làmba daal la wër sañ sa làmba daal la sa. yàgg nga de yaa fekkee làmba daal. <laughs> làmba <laughs>